Maggi moo leen may kooru biddéew déwénati leen togg bu neex sell te am cafka Maggi mi ngi leen ci gunge te di leen ñaanal kooru jàmm. Chaque femme est une étoile. Maggi. allo waaw tuuti yow ñam nga sa maafe bi nga togg tey mais maafe baa ngi wér xat ak xorom si pas possible de façon xam nga on en reparlera ma ok mais gën ñoo ko ça va bien. ok tey biddew. alhamdulilah André ça va bien. ça va mais naka góor gi. ça va yéen a ngi ci kaw. sant yàlla bu baax jaajëf waay. naka góor ça va bien. naka tey bien bien merci. ça va mi ngi ci wàññi bi. mi ngi ci wàññi bi. André comment. ah fajati nga fi. ma nga xëy ba ci buntu kër gi. xanaa xorom see la xëy. déedéet xaata xorom. xorom. ma ñam. aywa loolu benn problème. léegi nag ñu def am nga pomme de terre. pomme de terre waaw nga defe ne mën na ci dara. jox ma. gis nga pomme de terre soo ko amee. Mhm. koy xool ba mu set. dog ko en cube. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. raxas ko daal di koy def ci biir. soo ko ci defee day wàññi xorom bi ba mu yem. Ah waaw. mais déwén ci ma waaye fekkee déwén yàlla na yàlla boole jégal amiin amiin yàlla boole baal ñu fekkee déwén yu bëri jégal mais naka koor gi sant yàlla mais léegi mu jeex waa léegi mu jeex début bi rek moo difficile mais léegi mu jeex waaw mais ana day ami ah, mi ngi nii doog a egsi samedi dimanche sax du koy liggéey hmm? moo tax sa waay yaa ngi ci dara ma yaa ngi ci dara damay soob rek man sa waay ci dara xam naa li ma la ngi ci dara yaa gis nii danga ko ciy def bàyyi ko ci 15 minutes. Mhm. retiré ko. boo defee mu wàññi xorom bi yëpp. waaw mais kii kan la. non kii daf ma lakkal. jël ko. mais dama ah. poofu. allo waa Maas maa ngi ci buddi kër gi. poof nekkuñu kër ga dañu génn dañu génn nekkuñu kër ga kenn nekku fa tey dañu génn dañu génn kenn nekku fa. kii daf ma sonal. Ah lekk rek lay def. foofu mi ngi bëgg a ëpp nag. ana biddéew. biddéew mënoo koo jot ba suba. ah kon tey man du ma nagu tey. ba suba. ndey mi. Mhm. léegi mën nga koo génne ndax 15 minutes yu mën na. waaw. maafe bi neex na trop. waaw sa waay ndogul mais ndogul waay. maafe bi neex na trop. na rees ak jàmm. xam naa ne da ko tàndu rek. tàndu ah, da ko tàndu rek. <laughs> ok c'est bon ok merci merci. Biddew bu dee benn sandwich sax baax na lu ma am jël. magie moo leen doon may kooru biddéew déwénati leen togg bu neex sell te am cafka magie mi ngi leen ci gunge te di leen ñaanal kooru jàmm chaque femme est une étoile Chaque femme est une étoile.